yake eh tori ba ba na bin bayan kamar ta wani da su na te be ku to nya ti bora wasa ku to nya ti sai na ban ke be ku to nya ti dan na ban ke be ku sai kuma manadi labarke don jona allahu gaba la ilaha illa ni san isida ba ma man ko du ben gela ni san biyo sida ba ma man ko du ben allahu rabbi la ilaha illa adala kalam ba ma man ko du ben gela baladi umar ba ma ni yo la la نؤمن برسول الله نرجو وراه وكل محب فنبيب له اسمه صلى الله عليه وسلم قد أفلح المؤمنون سبحانه وتعالى جل وعلا ñu ngi julli ci sang sang yi muy Seydina Muhammad ñu ngi nuyu mbooloo bi di leen dokkeel di leen jox seen wàccuwaay kenn ku ci ne fekk nañ la fi nga toog ne la jàpp loxo ne la asalaamaaleykum wa rahmatullah kon ñëpp la jur kon nuyu naa banaa nga yëpp ak képp koo xamante ne laale nga mbaa takke nga mbaa bokk nga fi nga xamante ne mooy banaa nga toogoo kon loolu dama ciy jiital sama wayjur bu góor ne témoigné ak sama wayjur yu jigéen ñi nga xam ne ñoo fi teew am ñu jóge depuis banaa nga toogoo jërëjëf jusita xayra wa qufita charra wa ma laqita dayra barke Sëriñ Tuubaa gannaaw loolu mbokk yi damay nuyu l'honorable Moussa Sané yaakaar naa noonu la monsieur ñu ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di la ñaanal tawféex ak naal yi ngeen naal mbaa mbébét yi ngeen di mbébét yàlla mën na ko sañ na ko am na ko te am na kattan yeeg pas-pas gi yàlla na ko yàlla àggale ci dara ji yeneen ci jusita xayra wa qofita charra wa na bayra ñu ngi nuyu ñi nga àndal soxna yi ak képp koo xamante ne dox na ay jéego ba egsi fii waaye ñu ngi nuyu ñi nga xamante ne ñooy jeunes yi nga xamante ne ñoo organisé lii keneen ku mën a doon lii soo ko gisee dañuy wax ne rek lii ku ne daa neexul dañ la cee boolewul waaye ku xool lii ci ay gët jërëjëf sama mag ji yàlla na gudd fan dara ji yeneen ci bi ku xool lii ci ay bët rek mu yem rek ci nit ñi solo ñëw toog ñu ne lan la ñu ne mbokk ak diine moo tax a toog fii bañ a wax bañ a jàng benn jàng toogin gi rek rafet na ca sedd na xol yal nañ ko man déwén. kon damay nuyu sama wëllëre sama mag mu jiitu ma ci lépp ma fekk ko ci lépp mu Cheikh Sadibou Daawo ayyadahu llah wa hafizahu waraahu moom képp koo wax na ñoom la àndal mooy suñu batteur yi nga xam ne ñooy tëgg tabala bi yal na ni yàlla dooleel sàmmal gannaaw loolu nuyu naa ñëpp ndax su ma bëggee yim du jeex ndax ñëpp samay nit lañ donte ñëpp xajuñu ci man waaye man maa xaj ci ñëpp ndax matuma dara waaye li may ñàkk-ñàkk mat dara kenn ku ne jël nga ma yiir ma boole ma ci sa bopp sama yaay yàlla na gudd fan yàlla na fi yàlla bàyyi mbokk yi dañuy waxtaan lan la waxtaanee jawara ngay konton sa yaa jawara almaane sima yaa ñee musuma konton faatu daxaba alma aliya sa wote ak ah yàlla suñu fanaan mee ah ñii samay soxna rek cóo man dangaa gën dangaa màggee ma gën laa mag loolu ma jaaxal cóo ah <laughs> dangaa dem ba nekk meer ma gën laa mag loolu ma jaaxal <laughs> billaay bu <laughs> na sa xel dal gannaaw loolu mbokk yi dañuy waxtaanee dañuy waxtaanee ñaaw njort dañuy waxtaanee ku yëkkati boppam ak boppam sëñ Xarim Sarr ñu ngi lay jox sa wàccuwaay nga grand yëfu Koul Kontong ko commencé ak Dramé. Ndeysaan waa Tëngéej maa ngi leen di jox seen wàccuwaay ah man nag sama yaay lébu la ku wax lébu rek sa xel dem ci Tëngéej Ndeysaan gaal yeeg joow ya <laughs> ak ndaw rab bi nga Ndeysaan mbaa am nga a léegi mbokk yi. la ñuy waxtaanee loolu mooy rii lan lay tekki ak lan lay yàqal doomu aadama leen ciy teg mooy ñaaw njort lan tekki ak la muy yàqal doomu aadama leneen leen ci teg mooy nit fu mu toll di jéem a ñaaw defu nit ñi bëgg a fësal boppam ci lu rafet ak aj boppam foo xamante ni yàlla aju ko fa moo fa aj boppam maña sambu amara yow la fo nii ko wolof moo nekk càtt ji i ko moo nekk après ñu ngi mën a def jërëjëf juzita khayra kufita sharra wa laqita daira baral ka ñin mun ki di aka diya muro ibara ka pertu be sai ka mulka miliyon nin be miliyon nin da waka ko dan le ma subhanallah fa wala nja ka chawo mas ñine la dira da ko dira ñene la dira ma sha Allah ah sama jarbat bi baax dina gudd Euh, mbokk yi lan mooy rëy rëy mooy li nga xamante ne lenn la ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala daf ñu koo jox ba pare nañu bu leen ko jël daf ñoo jox rëy ba pare nañu bu leen ko jël ndax lan yàlla daf ñoo leeral ne rëy alalam la bokk ko kenn daf ñu doon bëgg a woon ne rëy ab mbindeef la bu yàlla bind rek ndax lu dul yàlla rek yàlla la bind ak koo mën a doon ak loo doon waaye day bëgg wax ne rëy lim koy wàcc wàcc si kaw suuf ak lim koy wan wan mbindeef yi bëggul mbindeef yi rëy bëggul ñu jël ko bëggul tamit ñu laare ci mbaa am na ko wax ne léegi léegi ne iblis laanatullah alayhi la tax mu xulóog suñu borom subhanahu wa taala mooy daa rëy woon jësita xayra wa qufita charra wa ma laqiita dayra di ngeen gudd fan de wallaahi iblis laanatullah alayhi lan moo tax mu jóge suñu borom subhanahu wa taala mooy yàlla dafa ne yaskala rabbuka lil malaika isjudu li aadama fa sajudu ila iblis aba wastakbara kana min alqafirin aba wastakbara wax ci gàtt gi rek damay tënk mooy suñu borom subhanahu wa taala bi mu bindee suñu ko maam Adama mu ne ko ab jëmb bu teg ay at yu bari ndax xal ataani insaanu xiinun min ad-dahri lam yakun shay'an inna xalaqnaahu min nutfatin am na leen yàlla fay suñu borom subhanahu wa taala nee na ay at yu bari Adama mu teg tiinu min al baxri la wax doomu aadama kenn xamul woon ne dina mas a am allah bu la dara suba soo xëy ma fay la moom kontaan man joxe dépense rek laa man soo xëy rek laa man yàlla dogal bi suñu maam aadama ñëwee jërëjëf yàlla bindu ko ay jamono yu bari yàlla deful ci moom ruu da koo bàyyi mu tëdd noonu ay at yu bari tiinu min al baxri la yàlla wax jamono gu gudd jërëjëf nadara moon a mbesimalal sido yaya ko diwolal a mbesimalal machallah bokki suñu maam adama bi ko yàlla bindee diir bu yàgg ki nga xamante ne mooy iblis laanatullah alayhi kon dañuy faral di wax ne xam-xam taxut a mucc alal taxut a mucc lay tax a mucc mooy xam yaay kan ak ki la bind mooy kan nga boole ñaari kan yi nga xam ne kan yi dañoo tudd kan te kan yi bokkuñu ndax kanu bi yàlla ak sa kan dañoo nuru tur rek waaye du benn xam nga tubaab synonyme lay wax xaw ma nan lay wax non la synonyme la da ngeen fi yàgg te gudd fan. dafa am lu nuru tur te soo leen misaane teg leen ci balance da xam ne am na ko ëpp sa morom poids Bassirou mooy jënd président ñooy konton Kotoma na organisateur Alhassan mu kam fàttali mot kama baatu ba ñu kontaan rek ñooy konton Babou Dula laanatullah alayhi damay bëri di wax ne xam-xam taxut a mucc li tax ma wax loolu mooy daa bëri woon xam-xam lool ba na woon xam-xam ba su ma bëggee jaar fan la ko yàlla jëlee ba mu sosu ndax ixtilaaf da cee am te yonent bi dafa wax ne al ixtilaafu l ulama rahma sali muy kan tam min di kañ akan new wallahi ah, yaa jaawleen ja ni ma ngi soorati yaa jaawleen suma suma la jërëjëf juzita xayra wa kufita charra wa ma laqita dayra Iblis dañuy wax ne bi yàlla bindee suuf bind asamaan dafee wàcce woon ay mbindeef yu bari yu wuute ki mujjee wàcce balaa doomu aadama di ñëw moo tudd jinne ay at yu bari lañ def ci kaw suuf yàlla nee kon doomu aadama ñëwul kenn xamul lu tudd doomu aadama ak fan la doomu aadama du sokkee ko te li gën a doy waar mooy ki gën ci mbindeef yi doomu aadama la muy Seydina Muhammad sama turandoo sama turandoo doom te su ma amaatee doom incha tuddee ko ko mbokk yi Iblis laanatullah alayhi xam-xam gu bari da koo am ndax moom malaaka yoo àndoon di liggéey mu nekkoon secrétaire seen biir donte du malaayka kaana min al la alquran wax fa fasaka an amri rabbihi wa qaala min al jinni loolu la alxuraan wax iblis bi ko suñu borom subhanahu wa taala santé dafa bañ ñu ne yàlla ndax malaaka la mu ne déedéet moom ci jinne yi la bokkoon kon lan moo tax iblis di ànd ak malaaka yi ndax moom rek a desoon ci kaw suuf comme jinne lépp lu jinne rek da ngaa dem ndax dañoo nekkoon ci kaw suuf di fi rayante comme doomu aadama ni ñuy def léegi di fi liggéeyante comme doomu aadama ni ñu def léegi di yàq sa yàqante alal comme doomu aadama ñuy def di yàqante der comme doomu aadama nii ñu def yàlla jéppi leen jëlee leen fi. beneen suñu borom subhanahu wa taala jëppee ma jëli leen fi muy diir bu yàgg li doy waar mooy moom bi ñuy rey di toxal àdduna moom ko ci ñu ñuy rey yàlla moo am pédagogie lu tax mu bàyyi ko fi te mu xam ne mbindeefam la mu ngi ci kaw suuf da koo fàtte déedéet yàlla du fàtte kooku ak xelam du goog du naax te du fàtte lépp dara du du fàtte waaye li doy waar mooy loolu li muy am am yàlla dafay jëlee jinne yi iblis malaaka kay fekk mu nekk lu tuuti ci li ñeneen yi wax jëlee ko fi yóbbu ko malaaka kay yar ko am ni ne déedéet yaayam lañ fi yàlla lañ bàyyi yaayam la malaaka yi jël yóbbu ko ba mu àggee muy laaj malaaka yi sëy yàlla ne leen nii ngeen di def da di tàngal barre de fer sëye ko ndax jinne safara la moo taxit wax ji moom bu mu rëy ci nopp nit ñi ndax Abubakar Siddiq dafay wax n inna diinuna mabniyun ala naqli la ala munasibatul aqli si seen moore al si maal diina gi dañ koy teg ci ay toxal kenn du ko xalaat rek di ko wax ay test la te li gën a wax mooy ñun suñu diine c'est pas des tests inspirés mais c'est des tests révélés yeneen diine jërëjëf Ndiaye ñaata Ndiaye ñu la fi yàgg de. di nga yàgg de léegi jaawale ko de moom la de non su tëll rek nga xam ne moom la. kenn niruwul ak moom te niruwul ak kenn dina fi yàgg lool jërëjëf jiite dam na jusita xayra wa kufita sharra wa ma laqita dayra jërëjëf moom bi yàlla dogalee iblis nekk ci biir malaaka yi at yu bay li doy waar mooy yàlla bi mu am ñu ne ñeent fukki junni at aadama tëdd ah bamba tuuba almay sima la aadama tëdd iblis pour nga xam ne iñaan ak rëy baaxul da doon doxantu moom ba muy doxantu mu dem ci lawxil mahfuz mooy fi yàlla di bindee emploi du temps yàlla mooy lawxil mahfuz mooy yàlla li mu war a def yëpp emploi mu def emploi du temps bi mooy lawxil mahfuz mooy alliwa gi suñu borom subhanahu wa taala wattu bi Iblis di dox ba àgg ci lawxil mahfuz jàng ne dina yàgg de waaye xaw ma kañ lay doon waaye yàlla dina bind ku tuddoo Aadama waaye su ko yàlla bindee day woo malaaka yëpp ne dem leen nuyu ko dem leen ngeen sujjóotal ko waaye dina am ku bañ ci ñooñu iblis ci boppam moo ne ci yàlla est-ce xam na lu muy wax moom dina sant nit ñi ñooñu bañ yàlla dina wax nit ñi dem leen sujjóot ñu bañ non lii moom erreur la moom première chose kon yëg na xam-xamam ba fàtte ko kay yàlla nee naa la yàlla mooy kan ak yow kan ñaari kan yi dañoo tudd kan te kan yi niroowut waaw kanub yàlla moo tax yow nga doon kan sawsa dañuy wax ne ala ko kunnite ko laata kunda kamo nake ate kuna kundu hande ah, ka kane kunkunda ye tujan ni kuyani sondu mo kuyani ndiso kuya nin kam fa ba ani nu furayo ye fa ndege wolof o <laughs> sasani ndege wolof <laughs> iblis li nga xamante ni weddi na yàlla première chose mooy yàlla da koo toléré da koo baal donc la tolérance c'est l'arme de forts waaw ñi am doole dëgg dañuy jéggale di jëllale soo fekkee am nga doole ku jekku da baale bu fekkee dëgg da jekku yàlla dogal iblis bi mu waxee loolu yàggul dara yàlla bind aadama iblis di doxantu di yor kaan comme sama papa ndeysaan bu jaabee kaan gi mu yor nii taxaw lu yàgg la dañ ma jéggal wax kaan ma tudd kaanam mais du kaanu iblis de di kaanu arfan bu jaabee <laughs> waaw bu leen xool kaan gi rek jàpp ne kaan la laa wakkal la bii sam ba baar fa moo ko moom <laughs> waaw yàlla dogal iblis di dox di doxee ci kaan ba mu àgg ci ab jëmm ju tëdd mu xool jëmm ji jëmm ji jaaxal ko mooy suñu maam aadama mu xool bët yi xool bopp bi xool yaram bi xool loxo yi rek mu jékki-jékki ne waa lii lu mu doon ak li mu war a doon kii daal xam naa moom moo war a déranger rek kii nii fekk aadama wowut bi mu koy kii nii ak kaan gi fi kaam gi jàmm mooy jumbax gi moo tax doomu aadama yi am jumbax la première chose eh, mari suñu nangoo dinañ waxtaana maana faambe sonnal naal santambe kaccala di aca bisimilla naja ati irasimaala mu koy def ba mu yàgg rek yàlla bind aadama aadama di doxantu ba mu yàgg rek dajeeg ñoom ne bërët yem ci ñoom ñu ne yàlla kii kan la yàlla ne leen kii mooy Adama waaye damaa bëgg ngeen dem nuyu ko kon moom xamul seen làkk te miinu leen musul gis seen jëmm te yéen it koy doog a gis te moo ñëw seen kër nee na ko foo jóge ak yaay kan jàmm seen teg moom moo tax yaatu dafa baax nekk nit ku yaatu dafa baax ku ñëw sa kër du xam waskaala rabbuka lil malaayika sujudu li aadama fa sajadu ila iblis aba wastakbara wa kaana min alkafirin نعم أبا واستكبر وكان من الكافرين yàlla i malaaka yi dama bëgg ngeen dem nuyu ki nga xam te ne mooy seen maam Adama malaaka yi ne ñaadam ñaadam kenn ku ne àgg ci moom nuyu ko xam nga damay faral di wax ne sujud taazim ak taslim ñaari sujud lañu bokkul mës naa ko wax benn waaye suñu dëkk ba ko ba tey mës naa koo nuyu jël loxo bi fóon ko mu ne subhanallah ni ko sujudu mbuloo ko fonte moo alala ma ne ko jaahil yaa man tan kalama fa laakira alma ينبغي يوسف لمي يا أبتي إني أرى إحدى عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين نمرو ساعتي يو آي وانجي نتولا يا حكي وآي جوالك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله إن كنتم إياه تعبدون أحكي له بو آي لكم إيه مولي عندك كرسي وكده كلهم يوصلوا عليك كارونو كوفلا وستانا بينهما المدرس al muallim ku fulana mol fatata karandirla ani mun ka leçon di i ɓe ɓe karandirol la bari nin ɗoye leçon di mais est ce que ay mun a comprendre le almudaris no toti woy leçon na di ñin ɗo wonatele a ye karandime ay mun dila a comprendre le ay feereke foyte a comprendre almuallim ah kon nañu dellu ci wolof ci maa ngi jéggalu damaa fàttali maa ngi saaraan de xam nga couteau à deux tranchants la yenn saa damay fàttali sax ay olof laa war a waxal maa ngi wax soose <laughs> waaw ma wax kër ga kër gi ndeysaan da nga baax jërëjëf mbokk yi moom iblis bi nga xamante ne bañ na ne de sujjóotal suñu maam Adama sujjóot ga moom mooy sujjóot di dem nuyu ko damay faral di wax loolu da ngay jote benn murit rek mu jox loxo rek fóon ko nii bul jàpp ne dara sujjóotal déedéet sujjóot bi ñuy sujjóotal yàlla loolu juróom-ñaari cër a koy def sujjóot bii murit yi di def loolu jox la cër la ormal la mu tudd tasliman bi ñuy defal yàlla mu tudd taaziman ñaari soo ko ràññeewul di nga tuumal murit yi te soo demee àllaaxira am ak ñoom problème yàlla nañ ci yàlla musal waaw nit ñi dañuy comprendre loolu xam ne ki lay nuyu ak ki lay kenn sujjóotalul nit yàlla rek waaye nuyu gii moom joxe cër la te dañ ko fii bàyyi ba yombal xiyam ndax saxaaba yi ñoo ko fi indi woon mbokk yi li xañoon iblis garaat gi mu amoon mooy garaatu secrétaire ci biir malaaka yi li ko ko xañ lenn kese la mooy daa rëy moom bi ñu demee ba jub suñu maam aadama taxaw ñu war koo sujoodal moom li xelam nekk mooy musoon naa jàng ci lawxil mahfuz ne suñu borom subhanahu wa taala jalla wa ala nee na suñuy dem bay sujoodal aadama am na kuy bañ moom fàtte ne moom dafa war a sujjóotal mu taxaw di xool ci mbooloo bi kan mooy bañ a sujjóot loolu la doon xool ba for moom moo mujjee su taxaw ñépp nangu def mu taxaw ne ah yàlla nee na am na kuy bañ moom fàtte ne boppam de rëy mooy fàtte sa bopp moom fàtte ne moom dafa ci ñu war a dem mu taxaw naan waaw yàlla moom newoon na ñëpp ñëpp ñëpp am na kuy bañ moom anam moom xanaa bokku ci waaye mu ngi taxaw ba am ko ko nag tëf tëf na mais eh, xanaa yow doo sujjóot yow bokkoo ci bi mu ko waxee loolu rek rëy dugg ko léegi nag su ko naroon sax des du ko def ndax dafa ñëpp loolu mooy rëy jàpp na ne amoon garaadam fu mu toll warul dem di nuyu kenn di ko raamal mbaa ko sukkal mas naa dégg keroog kuy wax ne balaa maa sukkal kenn di ko raamal mbaa balaa maa yëkkati sama alal di jox kenn addiya naa ko jox sama njaboot mbaa naa si tabax ak kër mbaa naa si dugal sama yaay nii ak nee ak man ko loolu yàlla la ko sant jox sa yaay yàlla la ko sant jox sa papa yàlla la ko sant dundal sa njaboot jàmm yàlla yi gën a rëy ci la bokk waaye nag soo taxawee ne faalewu ma kenn na nga tourné ne ma nit kenn faalewu soo xoolee nit ñi ne lijjanti ma kenn na nga ne kenn toppatoo ma fii kenn moom fi kenn waaye bi yàlla wàccee ci kaw suuf daf bëgg ñu joxente cër te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu yaree woon saxaaba yi mooy at tawaadu mooy suufeel sa bopp oyofal sa bopp wàcce sa bopp ba nga mel ne am mbindeef bi yàlla bind nar laa soxla benn bés yóbbu la faat la dugal la ci biir bàmmeel nga wiit fa yaa say jëf yàlla na yéex bokki bi ko loolu dalee looloo ko xañoon garabu malaaka ba yàlla rikki ko rikki xam ngeen ko xam ngeen ko rikki mooy tekki sa ndombal tànk mooy la nga amoon ci xam-xam la amoon ci daraja amoon ko ci martaba ndax li ma dégg ci olof dégg so olof la moo taxit waaw sama yaay yëpp nag day sàmm ah non am na xaaj yoo xam ne ay soose lañ waaye la ci ëpp ay olof lañ waaw jaajëf mbokk yi Iblis laanatullah alayhi noonu la xa bàkkaar a ngi ni ñoo njëkk ci kaw suuf te bàkkaar yooyu ba àdduna tukki ñooy gën a bon ci bàkkaar yi laaj na ma bu ci njëkk. mooy li ma tudd léegi mooy rëy iblis alayhi laanatullah moom rëy taxoon mu ñàkk garaatu malaakam ñaareel ki mooy xër lu dul sa cër da koy bàyyi kenn ku ne xam na ku la man kenn ku ne xam na ku mënoon sa bàyyi te olof day wax ne ku sa ba ku sa ku bàyyi man bàyyam doom ja yaa koy man xaw ma nag ndax olof li mu wax waaye je le normal ndax su fekkee jaar nga ci say tànki bàyyi ñamu manoon ñu doon nelaw suñu yeewul ba tey yaay man seeni doom xaw ma nag waaw mooy xël loo xamante ne du sa cër danga koy bàyyeeki ko moom euh, dégg naa ci mag mu ne Sëñ Abdul Ahad Mbàkke daan wax ne réew mi ñett ko yàq mooy ki bare xam-xam ne duma wax ndax su ma waxee ñu jàppee ma dara yàq na réew mi ndax mu ngi yàq li muy gis te mu bañ koo wax bañ ko ko jàppee dara loolu yàq na tudd ben ñu ne ko ñaareel bi réew mi ku ko yàq mooy ku xam lu néew ba mu xamee ba ko xam-xamam yam mu ne du noppi mu bëgg cee yokk far buy inventé mu yàq lam ciy doon baaxul ñetteel bi mooy ku xamul ba pare xamul ni xamul ni ñuy jàppee na ku xam na mu yaakaar ne moom it xam na mu ngi toj dëkk bi ak peccum ginnaaw xam nga peccum <laughs> nga naan toj réew mi ak peccum ginnaaw da ngay jàpp ne yaa fi fekk am na luy feeñ ci ginnaaw gars yi moom la gis suñu tàccoo rek ndeysaan na ngeen ma jéggal dégg naa li may wax nii ab genre livre la pour nit ñi xam ne rek nit yenn saa yi doo yëg li nit gis si yow li ngay foog ne loolu lañ lay xoolee ak la nekk yow bañ koy xool ñaari mbir la doon yu wuute moo tax xam sa bopp balaa ñu la koy xamal dafay am solo dégg naa benn mag euh, du mat sax benn euh, ku góor naa wax ku góor rek mës na ñaw lu cuub bu rafet grand cuubu grand boobu ba mu ñëwee cuubu grand boobu cuub bi nag daa ñuul xaw ma dañ koo cuub cuub bu ñuul xaw ma cuub la xaw ma lan la mais yëre bu ñuul kooku la bay briller xam nga ñuulaay boo xam ne su si la lampe yi tegee muy tàkk fàtte nag dafa dafa fàttee jiital muy dox ba mu yàgg rek mu bëgg a wagas rambu bi rek wagas ko nii muy dox ba mu yàgg rek romb benn ko ne xale bu jigéen bi ne ko ndaw ndaw ñuul moom mu jàpp ne dafa nekk ndaw cuub mu ne ko jaajëf waay tuddee naa la ko merci. maanaam daa xoolul boppam moo tax su xooloon boppam rek dina ko nàkkari ndax ndaw ñuul la ko wax ndaw si bi mu yëkkatee cuub bi la nekk ci suuf ñuul la ndaw si la ndaw ñuul moom mu jàpp ne ndaw cuub la ko wax mu ne ko merci tuddee naa la ndeysaan loolu mooy yaa ngi toj dëkk ba peccum ginnaaw da ngay arrière jàpp ne nit ñi arrière gi la ñuy ree fekk la ñuy seen di ko ree loolu ca yow la nekk te yaa ko siinul yal nañu yàlla ci am mooy nga sax ko fot mbaasu jàllee tamit du rees ñaar rek fi mën a suñu maama Adama ah du laa jumaalooti moving, move on, move on. a ah, wala man ni ngol gawa ke wadi bila lo ni mole meje ise fanje sadu abi aha kon dañuy delluwaat delloo buum ci mboy bay ga dañuy dellu ci wolof ga mooy la nga xamante ne loolu moo dal suñu maam Aadama ba mu génn àjjana lenn rek la mooy xër يا آدم اسكن أنت وزوجك ها ka منها حيث ولا تقرب هذه فتكون من الظالمين فتكون من الظالمين لا تقرب هذه الشجرة شجرة googu kese yow àjjana ni muy yaatoo ak ni mu baaxe ak ni mu naate ak ni mu amee ak ni mu yanje ak ni mu baawaane ak ni mu saawaane nga dugg ci biir benn garab génne la ci xër rek la lu leneen kon ñaareelu bàkkaar gi mooy suñu maam Adama bi ko yàlla ne jëlal lépp waaye lenn rek laa tere mooy lii moomoo ko ña moom dinañ ko jël si mu jël la mu moom ba pare bëgg cee boole yëfu jàmbur jërëjëf al yàlla fay yàggal na fi lool incha allah suñu maam ka nga xamante ne suñu maam Adama li tax mu génn fi nga xamante ne mooy biir àjjala mooy yàlla da koo ne lépp lu nekk ci biir àjjana yaa ko moom waaye lenn rek laa lay wax mooy garab gii taxaw nii bu ko laal ndax du mu ne damay xool est ce que moo ko moom wala moomu ko ndax iblis moo ko ndax mu xër bañ a doylu ba mu laal ko ba ko xañ ndombay tànk bi ko yàlla takkaloon mu rëkki ko ñetteel ga mooy lan ñetteel ga mooy ki ñaan ki ñaan ñetteel bàkkaar mooy trois bàkkaar ñoo njëkk am ci kaw suuf première bi mooy rëy iblis moo ko def ñaareel gi mooy xër suñu maam aadama moo ko def ñetteel gi mooy xaabila moo ko def diggante ma xaabila mooy da koo iñaane woon soxna su rafet da koo iñaane woon soxna su rafet ndax lal la suñu maam aadama ay seex la daan jur góor ak jigéen góor ak jigéen waaye ku jigéen kii mooy seeg góor gee nga xamante ne judduwul ak moom ku góor kii mooy judd ak këli nga xamante ne mooy seeg ki nga xam ne judduwul ak moom mooy seex yi ni ñuy uutee noonu la ñuy uutee ci ay soxna moom ki nga xamante ne kooku la bokk juddal benn bés kooku dafa rafet lool ki nga xamante ne kooku moo bokk a benn biir kooku dafa ñaaw lool te kooku lañ ko nar a may mu ne